Seydina Mandione Laye di doom ci xalif général des Layènes Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye eh, ak suma ay rakk ak waa Malika yëpp ak diine ji yëpp ñu ñëw fii tey ji Touba muy dëkk boo xam te ni que ni nañ ko lool ndax sunu wajur mënoon na ko lool ndax ñëw na fi ay ati ati ati ati at ba tey ji yàlla def mu nekk mag tànk ya mu daan dox ñun léegi noo ko koy doxal eh, dañu ñëw nag eh, d'abord ndax xam ngeen xew-xew bi fi xewoon eh, fan yi muy laxoog sunu waajur boo xam te ni que ni bu sori woon la ci nun yàlla jël ko loolu dafa baaxoon sang bi ci yoof wax nu nu ñëw fii ci xalif bi jotal ko njaalam ak waa kër Serigne Touba yëpp loolu uh, ki fi jóge nag nu ngi koy ñaanal yàlla yàlla mi nga xam te ni que ne mooy tabal àjjana yàlla ko yàlla tabal ci àjjana yu gën a kawe e, nu ñëw fii sang bi yebaloon nu it e, nu waxtaan ak sang bi pour mu ñaanal nu ci xew-xew boo xam te ni que ni dañu koy waajal fële ci Malika muy bés boo xam te ni que ni bu am solo la ci taarixu Layeen ndax foofu la yonent bu yàlla boobu muy Seydina Limaamu alayhi mu jógee yoof di gàddaay foofu la demoon am fa ñetti fan ak ñetti guddi loolu nag yàgg na lool ndax 1887 la woon kon xam ngeen yàgg na lool eh, tànk yooyu nag la kii nga xam te ni moom laa la def muy xalif général de Layènes El Hadj Abdoulaye muy xañtu di xañtu ba gis bërëb boobu en 1960. 1960 nag ba léegi mu ngay dem di siyaare ci barab boobu mu nekkoon mbooloo mu néew ci commencement bi waaye léegi lu ëpp nañu million ci ñu fay wàcc kon loolu ngeen xam ni que ni lu am solo la loolu nag sang bi dafa ma waxoon ni que ni nañu ko demal ci xaritam mbokkam wóllëreem wax ko mu ñaanal ci bés boobu ndax bés buy màgg rek day màgg ak ay difficulté mu sàkk woon nag ñu ñëw fii tey ci tubaa xalifa bi muy sunu wayjur mu ñaanal nu teg nu ci yoon jox nu ay xalaatam ndax bés boobu nu mën ko ci di dugg ci duggin bu rafet war ci génn ci génn bu rafet e, ñu ngi gërëm it e, njabootu sëñ Tuubaa yëpp waaye nag ñu ngi gërëm suñu xarit suñu wëlëre Cheikh Mansour juuf ñëpp xam nañu ko ci taxawaayam ca Ndakaaru ci kër Serigne Touba mu nekk sunu xarit di sunu wëlëre di sunu mbokk ginnaaw yàlla lii su mënee yëwan tey jii ci yannaaw yàlla ci loxoom la jaar kon sëñ Mansour Cheikh Mansour ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal it yàlla moom mi nga xam te ni que ni mu ngi koy jàppale yàlla na ko jàppale. amiin yàlla na ko gën a dooleel gën ko tette ci yoonam maama bi nga xam te ni que ni fële teg tànkam tey di ci liggéey liggéey bu am solo fële mu nekk. kon moom it nu ngi koy beral ngërëm bu baax eh, nu ngi waxit ne que ni ñu àndal ñëpp gis ngeen ni ñu ngi nii Malika kenn desu fa même njabootu sëy Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo fete foofu ñu ngi nii ànd ak noonu loolu dafay wan ne que ni que ni bu rafet la ñu dëkk dëkkin bu baax la it la ñu dëkk kon lépp lu ñuy laay di def murit kenn ëpp leen ca solo lépp lu ñuy def it noo koy ànd di ko def moo tax tey it nu ànd ak ñoom ba ñëw fii ci bërëb bu sell bi loolu daal defe naa mooy solo bés bi ak euh, visite bi mu ngi gërëm nag xalifa bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko wér yàlla bàyyi ko fi ba lépp lu mu naal ci yoonu maamam bi yàlla teg ko jàmm mu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.